kaddu yoo xam ne ñu bàyyi ko ci sëriñ Abdou Fatah mii mu jële ko ci sëriñ Abou Baraka mu tuxale ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahumullahu taala wa raahum kaddu yi nag bi ci jiitu mooy sant yàlla tal ba ñu mën a jooxe ndigal li nga xam ne ci lañuy ñu bàyyi koo démb muy matu weeru koor yàlla bu mu nekk suñu koor lañ ca jot a def lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te dencoon na ko fu yàqu bu yekk sëriñ baa ngi nuy ndokkeel di ñu dénk nag ay kàddu di ñu xamal ne bu yàggutoo ñu ngi doon séentu weeru koor mi ngi nii duñu tàggu la muy tegtale nag mooy lu nuyoo rek tàggoo lépp loo seen bopp ba léegi tey cat la romb la su dee loo xam ne mën nga caa yóbbante na nga gaaw ndax bu nekk la muy tegtale it ba tey mooy wane ne am na weer wu mat sëkk woo xam ne yées na ci suñu dund bis ni ki tey nañu fexe ba gan googu fi ñëwoon di weeru koor gan moom mënees na ko tere lu nekk ba mu des dem nettali la mu fa fekk buy nettali yàlla ñu nettali lépp di lu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan ñaan bu weeru koor di dem naan allahuma la tajalhu axiral ahdi min siyaamina iya fa in jaaltahu fajal ni marxuman wala mooy yàlla bu mu doon suñu mujjug koor ñi nga xam ne yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom ba noppi yàlla na leen yërëm te ñun ñi fi deseen yàlla mu ñu xañ yoonu weeru koor bi kàddu ñaareel gi dénka lépp Cheikh Mahamadul Fadal la woon daana wax ci làmmiñu boppam ba yàgg waxukaay ñëw mu di ko ca wax muy ñett muy ñu ci tuub di sàkk sarax tey balawati xaq tuub nag su weeru koor jàllee nga xam ne lay dem dem na kenn ko ne xam na boppam na futtikuwaat ca ñama ko war a wax xam ne ndigalu suñu borom moo fa nekkoon waaye ndigalu suñu borom day wéy ni weeru koor yu wéyee kon boog tuub suñu borom moo ko santaane ci alquran tuubu ilallahi tawbatan nasuha wa tuubu ilallahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun mooy nit ki xoolaat gannaawam la ko ca wóor ne mënoon naa gën a jag mu fas yéene réccu ko te du ci jot a gàttal tànkam yàlla na ko kenn def loo xam ne nag ci ay rëcc-rëcc moo xam mu jublu ko ca wala jubluwu ko ca ba defee ne yàlla du ko jéggal aakay ku tuub yàlla jéggal ko qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa sakk sarax suñu borom mi ngi di wax ci alquran ne ku jot ci bataaxalu yeneen bi ne yàllaa ko yónni na ko gëm te di dimbale war a dimbale ndax lii ñu ñuy dimbale ñi ñu war a dimbale kat suñu leen ci dimbale wutit ëllëg si dañ koy saam seen ëllëg suñ ko naaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir dellu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér war a dimbale ci seen teyu bakkan balaa bëy gi koy wuus yaa ayyuha alladina amanu anfiqu min tayyibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala xullatun wala shafaa kon boog sakk sarax euh, sarax yaatu na dem na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ci lii nit ki joxe sax waa këram di ko dunde mën na caa am yoolu joxe ak yoolu saraxe ba ca dolliku te moom laay jeexale mooy balonte xaq balonte xaq suñu borom nee na ku bëgg ñu di ko baal nay baale <clears throat> fal wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah kon boobu kenn ku ci nekk na xool moroomam bu fekkee jege na ko ne ko jàpp loxo te mu dëggu ci moom mu ne ko baal ma bu fekkee xam na ko ak bu ko xamut lépp ndax mën naa juum wax ci ab garam loo xam ne kooku yëgu ko te yàlla dara rëcc ci moom yàlla noonu yàlla boole jéggal sëriñ bi nag nee na suñ koy tëjee mooy ñu ngi ñaanal suñu Tuubaa Cheikh borom may ko ak wér te yàggal ko fi te àggaleel ko naalam yëpp te saa bu geesoo nag gis ñu ci ginnaawam sëriñ bi nee na ngi ñaan ñu ñaanal ko sëriñ Abou Baraka moom Cheikh Mahmoudou Fadal mi nga xam ne ci ay kàddoom lay waxe moo suñu borom bàyyi ko fi ba àggal ko ay naalam ci ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam di ñaan mbooloo mi yëpp itam ñu ñaanal nga xam ne moo fi toog suñu borom yàggal ko fi ba mu fee nekkal sëriñ bi moom mbooleem bokkam yi nga xam ne ñoom dafa fi di ñaanal jullit yépp ci réew mi ak bitim réew suñu borom dolli jàmm ci te def naataange ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom lañu ñu jubit sëriñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu doon nawet bu teel bu barkeel teñ muurloo ko ak mbooleem liggéey bu nit mën a def gannaaw bu jige ci julli gi suñu borom defal ko ca barke ak yaatal ba kum ca bëgg a dimbali mu la caa dimbali di ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax am na fi waaye na ko yàlla gën a dolli di ko ñaan itam fépp fu ab jullit nekk ak fépp fu doomu aadama nekk di fàttaliku ci ñaan itam bu baax a baax a baax suñu bokk yi nga xam ne dañu fi bokkoon ñoom nekk daaw te seen yaafus yóbbuwu leen seen mi neen ñëpp ñaan kenn ku nekk kam ak pën suñu borom dool yërmande si ñoom ndax kat am na si ñooñ fii la ñu bokkoon ak ñun nekk daaw wala feneen fekke bisub tey te fekke wuñ ko ren ñun ñii fi des nag du suñu njàmbaar du suñu ñawte mbaaxu suñu boroom la yàlla nañu ko fekkee déwén te mu ànd ak dal ak sago te suñu kilifa yi suñu borom bàyyi leen fi ndax ñu yomb àndal lañ yomb nañoo ànd àndal ni ko wolof di tënk rek dalu leen àndu mbët ak i bokkam nee nañ mbët ci wax wolof na topp ñu wax na ku jaar ci kanam mu ne yaa ngi sama gunóor yi soo nekkee ci pegg mu ne da ma def moroom soo ne dox ci ginnaaw mu ne da ngaa am fa may jokki loolu dalul leen yàlla yàggal si njaboot bi kanam njaboot bi te yàggal njaboot bi seen kaddu yooyu sëñ bi waxoon jotali ko euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kullu am bi xeyr